yéen ñëpp déggoon ngeen nii suñu parti Pastef ak nawleem yi mu ànd ak dañu fas yéene jàppale suñu candidature dañoo jàppoon bésu ëllëg samedi pour def lii ñuy wax ci tubaab cérémonie d'investiture mooy organiser benn ndaje boo xam ne gannaaw bu ñu tàbbee seen candidat dañ koy xamale ak sénégalais yi mu doon ndaje boo xam ne ndaje waxtaan la waaye ndaje euh, jukki lenn la ci suñu gis-gis ak suñu xalaatin mu naroon doon ndaje bu rëy ndax xam ngeen ni Pastef yàlla boole nañoo ak askanu Sénégal def ñu ci xolu sénégalais yi ba suñu woote mu suta tuuti doon ndaje boo xam ne ci ñi ko doon organiser jàppoon nañ ni moo naroon doon daje gi gën a rëy ci li ñu mës a organiser ba ñuy Pastef ba léegi ndax xam ngeen ni li ñu mujjee organiser teg ngeen ci seen bët ndaje googu nag lañu xëy démb gouverneuru Ndakaaru génne bataaxal gannaaw bu préfet yi seen bopp génnee ñoom ay bataaxal ne tere nañu ndaje googu dinaa ci dellusi waaye balaa muy dugg ci loolu danaa gërëm Sénégalais yépp ci kóolute gi ñu am ci ñun ndax laata sama parti di ma investir Sénégalais seen bopp ñooñu njëkk investir ndax foo toll ak foo euh, dugg ci Sénégal di déglu waxtaan yi ci réseaux sociaux yi di déglu waxtaan yi ci média yi di déglu waxtaan yi ci place publique yi wax ji genn dong la mooy kenn xalaatul élection am Sénégal te suñu jëmm ji loolu confiance la boo xam ne ëpp na weesu na suñu parti donc kon ñu ngi gërëm sénégalais ci kóolute boobu ñu leen ci sant laata suñu parti di ñu di ñu investir am na ay kuréel ci politique bi ñii di ay parti politique ñii day mouvement citoyen yoo xam ne waxtaanuñu sax ak ñun ñoo jóg rek dem def seen daje waxtaan ne ñun la ñuy tàbb ñu doon seen candidat ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye bu ñëwee ci parti bi am na fu ñu jaarale mbir mi ni ko charte parti bi tërale mooy képp kuy membre ci parti bi amoon nga sañ-sañ nekk candidat ñu ubbi candidature yi département Sénégal yépp ak yu nekk ci diaspora bi ñu ne leen kenn ku nekk na seet ci département am ndax am na ay candidat ak ñoom ban candidat lañu proposé waaye bu ñu dajalee loolu yépp professeur Ngouda Mboup ak haute autorité de régulation du parti ak ñi muy liggéeyal bi ñu dajalee loolu lépp li mu firndeel mooy kàddu gi benn la kàddu gi benn la mooy parti bi benn candidat la tabb mooy Ousmane Sonko ñu ciy gërëm it waa parti bi ndax dañoo nekk ak suñuy nawle gënuñu leen ëpp ñu leen jàng ëpp ñu leen xam-xam du alal guñ leen ëppale kon bu loolu yëpp dajee ñu jël seen kóolute jëmale ko ci ñun dañuy gërëm dellu sant yàlla d'abord gërëm leen yéen ñi ci seen confiance waaye wax leen ni seen kóolute boobu ilaa yow mi diin bu soobee ki bind du kenn koo xam ne dina toog ba matt baaram wiccax ne am naa lu ma lu ma ci regretté muy ci biir parti bi muy fi ñu dëgmal mooy bu ñu yàlla dénkee réew mi du kenn koo xam ne dina toog ba mën cee am déception bu loolu weesoo nag mbokk yi aaye bi nga xam ne gouverneur tere na ko suñu manifestation bi dafa dugg rek ci jaay doole gi nga xam ne ki ñu dénk réew mi moo ngi koy jëflante ak ñun depuis ay ati at te Sénégal yëpp teg ci seen bët ndax investisseur boo xam ne ab stade lañu dem jëli stade boo xam ne dafa tëju nga ne trouble à l'ordre public xam nga ne dangay ngay caaxaan boo xam ne semaine bu nekk suñuy nawle ci politique def seen investiture weekend bee ñu jóge rek samedi am na ko def investiture dimanche am na ko def investiture kenn terew ko ko ñoom ñii bu ñu tàbbee seen candidature ba noppi dañuy dem defi seen investiture lan moo waral tey ñu ne Pastef du def investiture am te ku am dégg-dégg ba liir communiqué gouverneur bi li mu wax ëpp na loolu de gouverneur dafa ne Pastef dootu fi def activité fii ci Sénégal te gouverneur dañ koy bindal rek ne ko signal mu signé ndax gouverneuru Ndakaaru Alxasan sal xam naa ko bu baax maag moom ñoo bokk promotion ENAM ñoo def ñaari at xam naa lu mu sañ ak lu mu sañut xam naa lu mu mën ak lu mu mënut xam naa ban façon nit la waaye bu ñu nee gouverneur dégg leen président de la république nga xam ne tey ayam jeex na mu war a dem bàyyi ñu ci jàmm nga xam ni tey président parti politique la comme ni ma ko doone li ko firndeel fan yii yëpp li gën a fës ci li ngeen dégg ci moom politique la jëm waaye du du du mbirum réew mi suba ba ngoon jot ma ngay dajale pale ay militangam nga xam ne suñu palais de république la te lii firnde ni lii moo ko digle dem ba palais de république dajale ay militant am waxuñu fa lu jëm ci réew mi waxuñu fa li jëm ci état lu dul mu nekk foofu naan Ousmane Sonko warul def investiture mu mel ni moom mooy conseil constitutionnel warul nekk candidat te loolu dinaa ci dellu waat kon provocation weesuwut lii muy énième provocation nag te dinaa ci dellusi si li mu wax te sos te tàmm nañ ñu sosal justice daf ñuy sosal gouverneur daf ñuy sosal préfet daf ñuy sosal ndax li gouverneur wax ci communiqué bi moom rek a ko dégg ci Sénégal ba mu daj naam wax naa ci sama interview France 24 te dinaa ko feddaliwaat tey ne bu dee Macky Sall dogu na ni day tere suñu candidature élection imma du am ci Sénégal wala suy am dina am ci jafe-jafe joo xam ne àdduna yëpp dina ci teg bëtam loolu ñun ñoo ko wax loolu ban rapport lu am ak cérémonie d'investiture bu ñuy def tey jii kon loolu tappale la lañuy ñuy essayer ci suuf nag mooy gëmloo àdduna bi yëpp nit ñi ay terroriste lañ te moom Macky nga xam ne bis bu ne mu wax weddi boppam mag moo xam ne day fooye xelam jàpp ni Sénégalais yi dañuy nelaw bis mu ne mu wax weddi boppam ndax du ñu wax dëgg ngeen jégal mu ci kàddu gi politique yóbbu na leen foo xam ne du wax dëgg suba duñ ko wax ngoon sos complot magum jëmm mun a taxaw xool nit ñi ci biir bët xam ne li muy wax du dëgg mu koy wax loolu moo ne ci ñoom ndax moom moo wër àdduna bi yépp ne ay terroristes ñoo songu Sénégal Sénégal yi doon manifester nee na ñooñu ñëpp ay terroristes lañu am ñu ci rax yor ay ngànnaay songu alkaati yi du loolu la wax fii mu dem ci tubaab yi wax ko yónni ministre des affaires étrangères mu dem wax ko ci tubaab yi moom ci boppam mu dellu si ñëw fii bi muy def discours am wax ko ñu teg ci ñaari fan mu dem def interview defe naa ci journal Le Monde waat ko barki démb bu muy dajale ay nitam ci palais ne moom Macky Sall lenn rek moo ko mënoon tax a def candidature am lenn rek moo mënoon tax mu déposer candidature am pour troisième mandat mooy su doon réew mi jànkoonte na ak ay risques ay jafe-jafe ay menaces yoo xam ne lu mel ni terrorisme waaw Macky Sall mi ne barki démb ay terroristes ñoo nekk ci réew mi Macky Sall moom moo ñëwaat taxaw ci kanam Sénégalais yi ne terroriste amu fi moo tax moom déposé wul candidature am dafa di ay nit yoo xam ne bu bu ngeen di topp seeni wax di ngeen xam ne duñ leen wax dëgg bëccëg duñ leen wax dëgg guddi loolu nag moo feeñ ci communiqué gouverneur mooy ay terroriste lañ ñun Pastef fi ñu bëgg a jëmale réew mi mooy taal ko fi ñu jëmale bëgg réew mi mooy euh, foqati réew euh, nguur gi par la force ma bëggoon nag waxtaan ak yéen